naa ne bu taxawee day wàcce leen micro yi tuuti. xam na juste bëggu jarul woon muy taxaw parce que daa loo xam ne man jàpp naa ne dig la waroon a yem dossier bi dossier bi dig la waroon a yem ndax dossier boo xam ne dañoo jël ay vidéo yàgg bëgg ñu cee nax jël ko ne Bah Diakhaté lii la wax Ousmane Sonko premier ministre te vidéo yooyu date yi mu ngi nekk en deux mille en deux mille vingt deux en deux mille vingt deux la vidéo yi nekk ñu ñëw bëggoon ñu ci nax far ñu démontrer ne leen lii ay nax la ndax lii lu yàgg la ndaxte la ray nit ña ca bis ba la nga xam ne si moo moo génne ñoom ñi ñu jàppoon dugal leen ci kaso bi lool moo yóbbaale vidéo yi bu dee nag dañoo voté une loi si boo xam ne yow en tant que président boo ñëwee da nga ciy seppi yi la arrangé yi nga xam ne si yow loolu la arrangé nga ñëw di ko toppi nit loolu du jàll ñu xam ne loolu jàllul ñu ne voilà dafa diviser fausse nouvelle ñu ne dafa diviser fausse nouvelle léegi nag nouvelle yooyu mu diviser te mu nekk fausse ñoom dañoo amoon obligation leeral ñu yan nouvelle la wala nouvelle yi amul tur xam nga soo nee yi mu diviser faux la da ngay démontrer lii faux la waaye division de fausse nouvelle yaakaar naa journaliste yi yëpp kenn mënu laa génneel ne la faux bi lii mooy faux bi li mu wax ci kër gi biñ ne jomaay da koo jaay Cheikh Diba mais bu dul dëgg na jomaay yónni euh, nu mu sax na yónni agence judiciaire de l'état mu ñëw taxawal ko fii indi kayit yuy wane ne baa da ko sosal bu dee Ousmane Sonko daam lu mu ko waxal te du dëgg na yónnee avocat mu ñëw fii wane ne dafa sosal Ousmane waaye toog ci say bureau climatisé sànni pataas bu tàng procureur pour nga yaakaar ne moom procureur day jël pataas boobu di la ko lekkal du ko def moo tax mu indi ko franc grand délit parce que am na loo xam ne su ay nit jugee kalaame ba mu leen ñu ne léegi procureur sax mooy auto saisir mel na dañ ko sànni pataas bi moo tax procureur ne leen kañ dem bu ñu demee flagrant délit ñun atte ko mu jeex parce que du du ngeen ma saraxe bugg dañ ko bëgg a saraxe bëgg ko jaxaseeg askan bi parce que am na loo xam ne bu dee Bah Diakhaté daf ko wax te vidéo bi ñu dégg Bah ay fee la ci nettali fee yi mu nettali nag bu dee du dëgg na ñëw contesté ko à la barre waaye duñ toog ci seen climatiseur yooyu uuf seen i jongoma ñëw taxaw fii di di di di bëgg a saraxe jàmbur bi loolu du fi am de ñu ko atte Bah Diakhaté ñibbi këram ci nu mu gën a gaawee te dama leen wax baa ci biir duñ am jàmm ndax semaine bii xam na liñ daj semaine bi xam na liñ daj te baa ci biir kii bi mooy Ousmane Sonko tànkam dootu ko teg Europe yéen yéen journaliste yi gëstu xam nañ li ma koy wax Ousmane Sonko bu tëjee Bah Diakhaté dootul dem Europe wala bu fa demee li dal Kabiru mooj moo koy dal yéen ñi xam Kabiru Mbodj na xam ngeen li ko dal junj doy na borom xel ku ne xam na ni organisation féministe yi nekk Europe bokkut ak yi nekk senegal yii di dëngal musoor nga xam ne ay dóorkat lañ organisation féministe yi nekk Sénégal dañuy dunde jigéen ñi di taxawaalu di wut lu ñu am mais féministes yi nekk Europe ñoom dañuy xeexal jigéen bañ na ko laal fa muus mu jigéen sax mhm. laal fa góor ko gën a gën ay daan kon na ngeen xam ne bul defee fii ba jaxate motion de censure mi ngi koy xaar assemblée bi ci topp Europe moom tànkam dootu ko fa teg wala boo ko fa tegee aéroport ba mu wàcc nañ ko dañ ko jàpp dugal ko ci kaso bi ndax dañooy xeex ak ak jigéen te di leen annoncé nag le premier juin góor jigéen yi dañ ciy woote manifestation leen ko xel salaamaaleykum gaa nii ñëwal nii ñëwal nii ñëwal nii gaa baax na baax na voilà alors lan moo xew li fi xew daal mooy ñëw ñun ci as agence Bah Diakhaté fii nag Imam Ndaw un inconnu fële ñëw ba ci buntu bi naan dañoo war a nangam taan seen day ci kaso bi ñu dóor ko lii moom moo fi am leneen amu fi réew mi nag ma sàmba ak ma paate ci biir tribunal bi soo comprendre nga erreur sax ñun def nañ ko te il faut il faut le reconnaître tribunal kenn du fa xeex il soo comprendre nga mais am na loo xam ne nañu droit xam taxi yi li mu wane wala naa mais mais est-ce que taxi yi est-ce que taxi yi niru nañu niru nañu ñun sénégalais yi est-ce que tey tey nii ñuy waxee bu dee ci wàllu sëy ci justice la bokk non mais da ko sañ nga ko takkee ci jàkk sañ nga ko takkee ci àll mais tribunal donc ko sañ a tas mais jigéen ñi ñu ngi souffrir ci loolu am ci réew mi par la force li am mooy ay dictateur lañu yoo xam ne pare nañu pour sacrifier Sénégalais yëpp ngir téye pouvoir bi ba nu mu leen neexee te pare nañu pour sacrifier benn Sénégalais dootul waxati xalaatam te képp koo xam ne nangu nga leen loolu pour man amuloo fayda beneen bi ci des mooy ak ngóor jigéen moom moom la ñuy wax mais est-ce que xam ngeen ne Sénégal am na nu muy demee élection législative yi bu weesoo réew mi. bu buñ ko xaajee ñaari xaaj ñëpp ay góor jigéen la ñuy doon parce que nguur gu fi nekk di jàppale ñooñu man dama gëm ne ku leen jox majorité à l' assemblée nationale mais Sénégal dina doon dëkk boo xam ne mooy ëpp góor jigéen est ce que loolu Sénégal yi dañ ko war a nangu déedéet dama ne sénégalais yi na ngeen jóg te fippu loolu laa gëm te loolu mooy dëgg Bah jaxate dañ ko jaay doole te noonu lañ paree pour jaay doole yeneen sénégalais yi kon bépp sénégalais ak fu mu mën a nekk na nga jóg ak sa dignité lii nga xam ne bëgg nañ ko teg ci sa kaw da nga koy bañ loolu laa gëm li may ñaan nag mooy baa jaxate nañ ko bàyyi te dinañ ko bàyyi te maa leen ko wax ndax xam nañ leen moom pataas bu tàngale ci seen loxo mhm. jàpp gi tegawul fenn te loolu duñ leen ci bàyyi jërëjëf jëf jërëjëf ki nga xam ne nag moom mooy Omar Sow waaw moom itam euh, ndax euh, depuis boobaak léegi waaw ngi ànd ak baa jaxate depuis ko ñëw si ba léegi ñu ngi lay maa leen di fay di leen ziare di leen bu wér wa salaam. tribunal ndax nee na am na kenn ki nga xam ne nag militant Pastef la kenn ci militant Pastef moo ñëw jàkkaarloo ak ñoom wax ay kaddu yi nga xam ne nag delloo nañ ko ci ay kurpeñ maanaam bu ñu leen tegee loxo ay diir bàyyi nañ leen suñu toll nii donc euh, mën nañ jàpp ni euh, ginnaaw bi ñu leen annoncé amoon na fi xeex Euh, am ci ñi nga xam ne jàpp nañ leen mun nañ leen confirmer ni bàyyi nañ leen. alors gi looy wax ci mbir mi. asalaamaaleykum mbokk yi. waaleykum salaam. damay laajte Sénégal. dafa nekk pays de droit la wala lan la. ñëw ba tribunal. fi mbaxana doonee benn ñëpp yem fi. nga fekk fi ay nit. ñu am seen i problème di ko lijjanti nga ñëw dagaleen aw saagandey. tegoo ko fenn parce que fi nga ko teg mooy da ngaa far au pouvoir. loolu xam nañ est ce loolu mooy liggéey woote. jub xam lan jubanti avant nga jubanti da nga jub Ousmane sonk juboo mënoo jub mënoo jubanti dara Ousmane sonk amul benn premier ministre Macky sal bu mu saagawut bu mu xasut wax la loo xamante ne wax ju bon la kon moom bu toggee à leur place moom war nag consommer Sénégal dafa baaxoo kilifa boo xamante ne day muñ mel ne président Macky Sall bu nekkee njiit te mënoo muñ say fee dëmb nekk fii ne wàll ñun xam nañ ko ñu ngi jóge ba Fatick fa lañ xëyee ñëw Ndakaaru soutenir Bah Diakhaté ak Imam ndaw ñun nag dañoo nekk ay opposants fiers d'être euh, fiers de l'être ñu créer benn groupe WhatsApp tuddee ko opposition engagée euh, monsieur Ka mu sama ginnaaw moom ma la président Tom mi doon waxee léegi nii moom ma la porte parole euh, Joli Cœur nekk la trésorière man mi maa nekk le secrétaire vous voyez ñun nag jóguñu pour yàq ñu fi def parce que ñu ñëw ko liggéey nit ki doo liggéey ba mu rafet nga mer ñëw di yàq ñun mel ñu comme waa Pastef du ñu saaga ay kilifa diine du ñu xas ay kilifa du ñu fenal nit du ñu yàq ay gor du ñu rey ay nit Ousmane Sonko fi nga toog milité woo ko en tant que premier ministre parce que tu as passé pour am nguur dañ ko waxta dee. d'accord voilà ah ok ngi lay euh, nuyu. maa ngi leen di fay nga xam ne moom mooy procès Bah waaw jërëjëf ñun euh, dañoo nekk ay ndaw yoo xamante ne alliance pour la république lañ bokk ba pare ànd ak un grand leader muy le président Macky Sall. Bah Diakhaté nekk un frère un camarade de partie boo xamante ne jàmbaar la tey nag ñu jaay ko doole euh, dugal ko fii nga xamante Euh, mooy euh, entre les liens de la détention ñu ngi koy naqarul nag bu baax a baax parce que baa jaxatee defu fi lu fi kenn deful baa Diakhaté deful lu dul alerte alerte bi nga xamante ne ñoom ci seen wàllu bopp ñu fi toog tey euh, ñoo ne woon activistes yi permettre nañ leen ñu alerter Bah Diakhaté dafa alerte ne peuple sénégalais nañu bàyyi xel bu baax ci li nga xamante ne moo ngi waaja a dugg suñu réew des na tuuti lu fi waay fayeeku xaalisu góor jigéen lay doon loolu nag ñun wax dëgg yàlla Sénégal ñun ñëpp war a taxaw amul politisien amul société civile amul opposition képp koo xamante ne bëgg nga Sénégal bëgg nga li nga xamante ne mooy suñu valeur yi ñu xamee Sénégal wëy continuer di wëy ci bi mu dëkk il faudrait que ñëpp lëngoo nekk benn laxasaayu pour xeex loole te gëm naa ne sax Sénégal kenn àndu ci lool nag bu ñu bëggee forcé loo xamante ne wax dëgg yàlla du suñu cosaan du suñu culture du suñu dara am nañu droit bañ lank ba tëdd ci naaj bi te loolu la ñuy def incha allah toute la jeunesse sera mobilisée à côté de Bah pour le soutenir parce que il n'a absolument rien fait que d'alerter il a alerté pour que les Sénégalais puissent comprendre ce qui se passe actuellement euh, l'homosexualité ne sera jamais tolérée dans ce pays l'homosexualité ne sera jamais permise dans ce ce pays où les grandes figures religieuses sont connues de partout dans le du monde donc aujourd'hui muy journaliste yi muy ñun ñi muy ñëpp surtout jeunesse bi parce que bu mu toll nii luy dox ci àdduna bi lu doy waar la àndal ak ñun ñu jox la xaalis bu bëri nga mën a fay say salaire loolu nag wax dëgg yàlla du tax ñu ànd ak ay homosexuels nous sommes désolés jërëjëf ah, tax na ba ñu bëri maanaam ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo nekk seen coalition tey ji nii gis nañu ñu bëri ñëw nañu soutenir Bah Diakhaté est-ce que lii moyen la pour mun a relancer li nga xam ne nag ba mooy le débat entre l'opposition ak li nga xam ne nag mooy le pouvoir ginnaaw ci ci ginnaaw euh, am na ñu bëri li nga xam ne daanuñu leen dégg ñu jël kàddu ci li nga xam ne mooy doxalin réew euh, xam nga ñun daanaka dañ leen a mayoon Euh, li ñu tuddee temps de grâce mais ñoom dafa mel ne bugguñu temps de grâce boobu parce que liñ fi toog ak léegi motuñu motul deux mois mais ñoom ñoo accéléré ñoo déclenché suñu jóg te incha allah nii lay mel képp koo xamante ne jóg na pour faagaagal non seulement euh, la liberté d'expression faagaagal euh, réew mi sax laay wax d'une manière globale ñun dinañ jóg jàmmaarloog moom te lool lañ bëgg a def ki nga xamante ne mooy mooy mooy Bah Diakhaté injustice lañ koy jaay euh, yëf yi euh, maa tey lañ ko jaay te ñun wax dëgg yàlla duñ ko seetaan nous sommes prêts à laisser notre vie ça il faut que ça soit clair te mobilisation bi ngeen gis daanaka lu tuuti la lu ndaw la par rapport ak li ñuy préparer tenez-vous bien nous sommes en train de nu préparer pour de fortes mobilisations parce que lii ñun daanaka opposition lañ xam nous n'avons fait que trente-huit mois seulement d'opposition pour arriver au pouvoir donc xam nañ li ci opposition mën naa wax ne sax ñun mosuñu nguuru mosuñu nguuru opposition lañ xam dañoo xeex ba yegg si ci pouvoir bi donc xam nañ li ci opposition xam nañ as tuut li ci pouvoir mais tey demaat nañ opposition donc danañ xeex xeex bi ba ñëpp xam ne wax dëgg yàlla suñu camarade bi duñ ko bàyyee ni te dinañ ko génnee fi mu nekk. parce que c'est un otage Euh, gisuma gisuma ko nag wax dëgg yàlla euh, dañoo ñëw wax dëgg yàlla ak camarades yëpp fees fi del euh, salle bi la salle était vraiment très petite pour contenir tout ce beau monde là moo tax jotuñoo dugg ci biir mais ci hall bi lañ nekkoon di dégg ñi ñuy wax lu tey son excellence président Macky Sall bi mu demee lañ koy soog a xam ndax kenn ku